boo ne woon booba na dañ ñooñu ñàkk amul warante wallahi billahi tallahi guddi gi nag neex na ba noppi mën na ma ñaan waaye li ci des yaakaar naa ne dana neex xam nga lu tax teem a ko cee ñaan ak teem a ko cee may la teem a ko cee ñaan ak teem a ko cee may bu ñu dajee seen waxtaan yomb xaddeegu leen li ma wax de teema ko cee ñaan ak teema ko cee may bu ñu dajee seen waxtaan yomb kër Seydil Hadji Malick dañu baax a baax a baax a baax ba ku ñu dajeel ña nga naan teema ko cee may ci yiwu yàlla wi nit ñi bëgg leen a bëgg bëgg bëgg fa tabarakallahu yàlla na yokku ba ku ñu bu ñu dajeek ñoom naan teema ko cee ñaan kon waxtaan wi dina yomb ñu ngi nuyu waa Tëngéej yépp di nuyu waa pénc mi di nuyu njabootu maam Cheikh Hadj Daouda Ndiaye gépp radiallahu taala anhu di ziyaara mag ñaak ndaw ñaak góor ñaak jigéen ñi jigéen ñi sëñ bi ñaanal na leen léegi du ma ci dellu waaye wax naa ne jigéen ñi seen jëf ji ñuy jëf yàlla seede na ne dana leen ko fay lu duuf ëllëg xaat xam nga léeg-léeg nga dem ci tàmm ci jigéen ñi rek ngay gis ñuy sarax waaye seeru njaago mooy jar juróom-ñaari junni ñoo koy woddoo caaye juróomi téeméer rek lay jar ah caaye kon yomb na lay jar nan nan reeree ci yem nag alhamdulillah noo ngi sant yàlla ci bind gi mu nu bind ci coobareem mu def ñu ñuy nit te doon nit ku ko def te seetlu koo xam ni ameel nga yàlla njukkal lu dul jeex ndax kenn mosu cee romb aw rab rab wa taaru rafet ba nga ni neexoon ma mel ne rab wii ñee ko kenn du ñee rab mukk kon nekk gi nu nekk nit ci coobare yàlla amee nañ ci yàlla cant mu soob ko mu baaxe ñu ba ñu nekk ay jullit yàlla na nu nekk ñu am imaanul kaamil jafe na nag mu soog ko nuy jéem a nandalu ci barke njaboot Cheikh Hadj Malick ci xadratul ahmadiyati atijaniya mu mel ne nit bi ko yàlla bindee daf ko séddale ñetti xaaj ci waxin benn xaaj bi muy xol bi bi ci des mooy làmmiñ bi li des di ay cër yépp ab xaaj la ci nit mu waay ay waay jële kooku ne joogo mu mel ne nit bi ko yàlla bindee daf ko def ñetti xaaj xaaj bu jëkk bi mu ne mooy xol bi beneen bi mu ne mooy làmmiñ wi li des ci cër yépp ab xaaj la ci nit ki ñetti xaaj yooyu xaaj bu ci nekk am lu ko yàlla terale ci ak jaamu xol yàlla terale ko xam yàlla ak wéetal yàlla ci xol la ñuy xame yàlla làmmiñ yàlla terale ko tudd yàlla ak jàng téere yàlla bi moo tax ku xeeb course gi la sëñ Abdou jox def ay mbooleem cër yi ci des mu jagleel leen jaamu ya ca des ñetti xaaj yooyu xaaj bu ci nekk yàlla wut ku koy wattu moom yàlla moo tippoo xol ni maa koy garde moo tax la yaalamu maa fi damir al abd illa allah julli woor azaka aj makka mu jagleel ko cër ya ca des ni nag kaddu gii génn ci lammiñ wi na ko malaaka yi garde maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid moo tax boo àddoo bi wax ci la ñuy commencé di bind xamuloo ni même ki añaan wala mu soxor wala mu siis bu ko waxagul jëfandikoo gu ko amagu ci bakkaar waaye nag bu yeggee ci wax ko wala mu jëfandikoo ko wala mu tax koo ngóobi wala mu ngelaju mu commencé am bakkaar ndigalam moom yàlla ak tereem moom la dénk cër yi ñuy garde boo ne nit di bëgg a def lu bon tere yàlla ni jëmm ci sa kanam soo ne nit di bëgg a def lu baax ndigalu yàlla ni jëmm ci sa kanam poussé la ci ni la boo ko defee tax moo tax soo moyee yàlla ci xol mu am tur nga moy yàlla ci làmmiñ tur wa soppi ko nga moy yàlla ci cër tur ya soppi ko boo déggee ñu ne munaafiq xol baa sikk yaa ayuha alladina amanu lima taquluuna maa laa tafaaluuna kabura maqatan inda allahi an taqulu maa laa tafaaluun boo déggee ñu ne diw naafiq la xol baa sikk boo déggee ñu ne yéefar la làmmiñ waa gàntu nanguwul tudd yàlla boo déggee moykatu yàlla la dafa dëngee cër mat na xam de mu ne ku naroona tarde bokk ca ngont ma te nara bokk ca ña mujjee egsi mag ma liggéeyal yàlla ba yépp la ci gaalam ba nga bokk ca xëy ma sa teele egsi boo dee xalaat dëkk ko sóoraale am déggu leen wolof yi dama ne ku naroon a bokk ca ngont ma te nar a tardé teg ca am mag mu liggéeyal yàlla ba am gaalam dugalaale la ca gaal ga ba nga bokk ci xëyma te bokk ci ñetteele egsi mag mooma boo dee xalaat sóoraale ko lan laa bëgg a wax xaw ma man de waaye réew Afrique ku fi nekk te di julit ca ngoon da nga naroon a egsi te da ngaa naroon a tardé góor gu baax gu tudd Sidi Hadj Malick moo liggéeyal yàlla ba am bato yëpp nu ca ba nu teel a egsi egsi ci fajar may waxtaan tuuti ci miimiyam bii ñëpp dégg nañ ci lu ne waaye ku nekk na ngay toje sa bopp jàmm ñëpp dégg nañ ci lu ne waaye ku nekk na ngay toje sa bopp jam xam nga koy déparé tey juróom-ñaari at rasulullahi ca feebar ba ko dal ak lu faj feebar ba fuñ ko fajee nuñ ko faje foofu lay déparé tey ak ñàkk sikk si Seydil Hadji Malick si te moom sant yi dafa am xoram Seydil Hadji Malick sant bi dafa am xorom gis nga mbaar mi nu tiim moo alaj mari ñoo bokk sant asamaan nu mu sant suuf suukar xorom soxna si su di aj mari si ne wax nga dëgg de bu wàllu si wul dara dox de waaye sant fu mu bokk dara du baax walhaadi aji ginnee ji jëme ca boroomam di rasulullah walhaadi
innaka la tahdi ila siratin mustaqim yasin walquran alhakim innaka la min almursalin ala siratin mustaqim da ngeen di weccoo de
waaw Sarr da ngaa bëgg ma xool noonu dangaa njëkk dangaa njëkk waaye mënumaa woon gannaaw sëriñ bi
man
am sëriñ bi digal nga ma ko waaw kay maam xaaji malik nee na radiallahu taala anhu
wal haadi aji gindee ji jëmee ci boroomam waaye gindeewul jëmee ci boppam
loolu de mosuma ko def wa innaka yow muhammad la tahdi ay la tabiaw da nga woote moo ci ndigalu yàlla ila siratin mustaqim jëmee ci diggu yoonu njub wa maam xaaji bari ni wal haadi aji gindee ji di rasulullahi sallallahu alayhi ataahu dal na ko wa sallam fii saabiil aami ci juróom-ñaareelu atam bi yi ci at moomu ataahu la ko dale ramadun wànnent mu ne fa yàlla hoo waa naa la ko ñeel min shiddati l alami ci tartaru mettitu wànnent wa ñu ne lu tax mu ne bët ya dafa dijji te borom bët yu dijji bu wànnentee mu metti dëgg la waay ñu ne xaaji Malik wànnentuwa fu ñu ko faje mu ne xam naa ko Abdul Aziz
إلى راهب طب يقول له دواؤه ريقه فارجع إلى الحرم بما تيري بيت باب بطر أن بن قصيدة الحاج مالك سي سيد الحاج مالك سي مودو مي moo ko def ci kanami rasulillahi gis ngeen xasida boobu pour ma waxtaan ci dama koy jaay ndax cher ga mu cher par cher xasida ba dama koy jaay ndax cher ga mu cher ku am njëg jël ku amul njëg ma dem ak moom xam nga lu ma koy jaayee kon kon ama koy jëg bi rasulullahi wànnantee ci bët Seydi Xaaji Maalik nee na hudi jëmaleef na ko ila raasibin jëm ci labbe ñu ne ko labbe ba lu ma labbee mu ne tibbin bu dib docteur tibbin bu dib suru soñ xam ngeen suru soñ de suru soñ suru soñ mooy docteur
mooy lan suru soñ mooy docteur kenn xamu ko ah yow da ngaa dégg wolof tubaab nga rek guddi jëmaleef na rasulullahi sallallahu alayhi ila raahibin jëm ci labbe tubbin budib suru soñ wala budib docteur ba ñu yegsee présenté ko ko mu seet ko yaqulu lahu mu wax maam ji ko ëndi salawatullahi wasalaamu alayhi fa koy jaaj tey ci ki ko jox ci rasulullah yaqulu lahu mu wax maam ji ko andi ni ko dawaa'uhu pajam wala dawaa'uhu saafaraam wala dawaa'uhu médicament bi faj wànnentam wi riiquhu mooy loru gémmiñam farja jàlloo sa malaab bii di Muhammad ilal xarami jëme ko màkk bul pikiir bul diw bul jox garab ne jël loxoom tifli ci loru gémmiñam raay ci bëtam mu yëg man koo xam ne sa loru gémmiñ neexal na teen bu wex wëtali wéral bët bu wànnent ku la tàntal taalal la ay projecteur wala télévision xalaat ba Seydil Hadji Malick surtout Seydil Hadji Malick ñëw fi ci ndigalu sunu wasila Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz kooka juumul kooka juumul pour wan la ni la xawma nun noo dootul taalibeem déet waaye ñoom sëriñ lañ ba léegi damaa defe nun noo dootul taalibe waaye ñoom sëriñ lañ ba léegi te xamuloo ni médecin lu man man mën a faj munu laa faj tant que ñëwoo jox ko sa bopp ñëw ci docteur nag jox ko sa bopp ba pare mu yëkkati médicament jox la gannaaw ba mu la seetee nga naan ko lu muy jëriñati ak ndof la nag moo xaat ko de dama ne Seydi Xaaji Malik ak njabootam damaa defe ni nun noo dootul taalibe waaye ñoom ay sëriñ lañu ba léegi ñëw ci médecin nag jox ko sa bopp xamoo lu la dal ndax jaaxle ci sa bopp mu seet ba yëkkati garab jox la ni la naanal nga wëlbatiku naan ko lu garab gi jëriñ dug nite la kon ku demati ci ñoom te ñu mat sëriñ sëkk ba nga jox leen sa bopp bul tànnati ku ñuy jiri
doo sàmm bu doon dong bu doon doo taamu kon nag mu ngokk fa sidqu fa huwa zinatul muridi aadana allahu min al maridi Seydi El Hadji Malick nee na dëggu mooy taaru taalibe nee na yàlla nu yàlla musal ci fetteerlu ñu ne ko luy fetteerlu mu ne yam ya jaxal ne ci digg bi ne taalibe laa te doo moom
yàlla nañ ci yàlla musal
yaa ayyuha alladina amanu ttaqu llaha ba noppi wa kuunu maa sadiqin yàlla nee na ci alquran yéen ñi gëm ba nekk ci daairatul iman fexe leen ba ragal ma te ragal yàlla kat ñaara ko tënk mooy taxaw temm ci li mu digle pour def taxaw temm pour wan gannaaw li mu tere ba pare nag nga seet te ñu dëggu ña ku la mag kilifa nga làq sa bopp ci gannaawam te bàyyee ko sa bopp Seydi Ibrahima Rayahi wax na ko nee na rabbi inni sadaqtu kulla waliyin raaciyan qadrahum bayna ixtiraami gayra ana bni salimin huwa cheikhi wa malaadi wa awdati wa imaami nee na yow sunu boroom mboolem wali yu boo am dëggal naa ko maa ngi sàmm darajaam maa ngi koy xormaal waaye ibnu salim nag di saydi cheikh ahmad tijani mooy sama sëriñ mooy sama wéeruwaay mooy sama njiit bàyyi sëriñ haadi Touré rabb ko ni mbooleem wali yu yi naw naa leen ci yàlla bu wér gannaaw ba jaayante na ak cheikh tijani mbooleem wali yu naw naa leen ca yàlla bu wér gannaaw ba jaayante na ak cheikh tijani
diine moo leen walli yu yi man naw naa leen diine bul xas walli yu yow bu koy gaaral bu koy diine bëggal demal màggal soppal
yàlla ko santa diine mboolem wàllu yi man naw naa leen ci yàlla bu def naw ba jaayante na ak Cheikhu Tijaan diine yaa Cheikhana Ahmad bi doon jox ndax def leen ni leen tegal li na moo xol moo ba baawa diine yaa Cheikhana Ahmad dëgg la màggal sa lal ka dëlle na boog xol moo fa bawa diine yaa Cheikhana Ahmad dëgg la màggal sa lal ka dëlle na boog xol moo fa bawa dëgg la bul tokk bul yokk ñëw ci wut yàlla soo sax am ko warul te doolal Cheikhu Tijaan téeméena ak topp way Yàlla ak janna ak janna diine dellu si nag tey mus la
daanu lana jubal ni ñun jox ko beeram nan beeram tey dem tey tey ñaar diine yàllan baa nee na ku nay nay day dal ak yow ak mbindeef ya
diine téeméena ak topp way sooreel nag ñaari
ma ne ku xomaak ku xomaak ba tëgg yépp seet ba ne kenn mënatu laa defar man gis naa ko man weñ ma ne ku ci xomaak ba tëgg yépp seet la ba ne kenn mënatu laa defar man gis naa ko man weñ Seydil Hadji Malick si bii man na weñ ku mu defar nga defaru ku mu jàngal nga xam ku mu eggale ngay eggale billahi te xam naa luy ngi mu ne laqad ashraqat leer na nañ anwaaru xobbihi leeri cofeeli rasulullahi fil qalbi ca xol ba xol sama man Maodo bu Cheikh Alxaaji Abdul Aziz leeri cofeeli rasulullahi tàkk na ci tafaadat daal di bëgg daal di tuuru du mawal ay ni rangoo ñi bët sama xorkan ngir ga lakku di waj ji ngir coxeel ga dafa rax njàqare damaa sopp yenent bi ba jàq waaw baykatu tàkkusaan da ku ko maqantil ëlléeram yokkal nga ko mbay ay cheikh teyal ma li waay xaalis baa ngi bëgg a yàq sax li may def billaay xaalis a bon ndem barewul nag
waaw
ilayka rasulallahi minni taxiyatun tafuuqu alqudaama fi sanaahu wa itrihi sëriñ bi toogay wax ba léegi de moom Maodo bu Cheikh Alxaaj Abdul Aziz mu ne yonent bi ilayka jëm na ci yow rasulallahi yow yonent yàlla Muhammad minni jóge ci man Maodo si taxiyatun ab nuyoo maa ngi lay nuyu de maa jóge Sénégal ñëw di la nuyu nuyu boo xam ne tafooxul xuzaama kawe na cepp xam ngeen cepp cepp cepp
waaw xam naa boo rootee ndox def ko ci ndaa bëgg mu neex a naan ñax mooma nga cay def mooy cepp mu ne nuyu bi may nuyu rasulullahi tafooxul xuzaama kawe na cepp fi sanaahu ci yëkkatikoom wa itrihi aku xeeñam wa tabdauha topp na ca nuyoo ba min nii jógee ci man Maodo ba tey ilayka jëm ci yow rasulullahi ziyaaratun ab nemmeeku ni yàlla ko wax bi ni ko ayaa xayra xalqillahi yow mi gën ci mbindeef fi yàlla yi sayyida rusulihi yow mi sangu ñi mu yónni te sawanu fii sëriñ bi ñetti bayt yooyu laa doon bégale mbooloo mi yeewi la fa tabarakallahu yàlla la yàlla yàggal ci sunu kanam sa wayjur wa tedd wa xafidahu llahu wa ayadahu llahu bi nasr bi nasr cheikh alxaaji abdul aziz sunu sëriñ bi yàlla na ko fi yàlla yàggal amin te yàlla may ku wér yàlla yàgg koo def mu di jamtu njolloor amiin yàlla bàyyi ko fi mu dinu tëbb ci sharia bi ak ci xaqiqa bi asamaan su naxewul yàlla suñ abdu mucc amiin yaa rabbal aalamiin ku amul góom ci biir gémmiñ weñ matt la ca yàlla suñ abdu mucc rek sëñ bi kon ñu yeewi la ma yeggalee mbir mi fa baxin baxin yaa sayidi wa malaadina man kaana xaatima asri walbaari الحاج حبيب سنين عجبا ببدعة مالك وإمامنا نعم الفتى من حاز كل فخار لملا وأنت وليد مالك شيخنا ذاك الذي هو عمدة الأخيار نال الولاية Maodo Abdou ndeysaan Pape Habib si Alaaji Habib way woowu la mujj way Cheikh Alxaaj Abdou daaw rek la ko la ko ko way ndeysaan waaw
fa baxil baxil yaa sayidi wa malaadina man kaana xaatima asrihi walbaari tabarakallah waaw
yëg yëg yëg yëg ngeen ni gàmmu gi kéemtaan la sëñ abdu yi way may xabib bi rakkam di xiil sëñ abdu lañ ko tudde pap xabib lañ ma tudde nan ko maax tabaxin daleel ca bopp ba fa baxil daleel ca bopp ba gën a fa baxin fa baxil ajaban bi bidaati malikin wa imamina niama alfata man xaaja kulla faxaay yow yaa xam ajaban moom day dafa bind fa baxin ca bopp ba baxin yaa sayidi wa malaadina man kaana xaatima asrihi walbaari bay xabib si ibnu sayid alxaaji malik si radiallahu taala anhu mooy ni jàpp bay abdul aziz ni fa baxin est ce que kéemtaan fa baxin est-ce que kéemtaan yaa sayidi yow sama sang Cheikh Al Hadj Abdoul Aziz wa malaadina tey sunu wéeruwaay tey ak ëllëg man kaana xaatima asrihi walbaari sa kaay ma wax la ci lenn boo xamul kii may woy man alxaaji Habib si ki may woy man kaata man kaana xaatima asrihi mooy xaatimum jamonoom waaw luy xaatim xaatim góor la gu tabe bu mënoon a maye exemple yi ñu cay jox bare na mais ma joxe ci benn bu gàtt fajkatu soxla la bu ko daawul di saane am ko am yitte ju mënta faj mu dégg ne xaatim kuy faj soxla la te du ko nett li ca pénc ma mu jóg di wëri xaatim te xamu ko daw ba jub makka dajeeg xaatim di génn mu nuyu ko mu fay ko mu ne ko foo jëm mu ne ko makka laa jëm mu ne ko koy seet mu ne ko xaatim mu ne ko ndax soo ko gisee xam ko mu ne déedéet mu ne ko may xaatimu too yi man mi may xaatimu too yi